English, français, Wolof. Hi, comment va? Nanyandev. Is God omniscient, meaning all-knowing, que Dieu est omniscient? ce qui veut dire qu'il yàlla dara umb ko moo xam lépp am I am going to give proof in all three books in three different languages French, Wolof, and English. Je vais donner des preuves dans les trois livres saints en trois langues différentes, anglais, wolof, français. dina joxe ay firnde ci ñetti téere yu tedd yi ci ñetti kalama yu wuute anglais français ak wolof Old Testament, here is my proof. In the book of Job 37 verse 16. Job 37 verse 16. Do you know the balance of the clouds, those wondrous work of him who is perfect in knowledge. Perfect in knowledge. Let me give another one. Jeremiah 23, verse 24. Can any hide himself in secret places that I shall not see, saith the Lord? So the Lord is saying nobody can hide from him. He know where you're at. he know what you're Le Nouveau Testament. Ici sont les preuves. Le prophète Job, dans le livre de Job, 37, verset 16. Celui dont la science est parfaite, la science est parfaite. Jérémie 23, le verset 24. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel. Où tu es, je te vois. Tu ne peux pas te cacher. Dieu sait tout. ci testament bu njëkk bi yone yonent yàlla Joob ayub lañ ayub mooy job ci anglais ak français suura fanweer ak juróom-ñaar aaya fukk ak benn moom mi xam lépp mooy yàlla ci Jérémie ñaar fukk kenn mënul nëbbatu yàlla foo nekk mu ngi lay gis foo nekk xam na ko léegi nañ wax ci léegi nañ wax ci in the New Testament more proof again first John 3 verse 20 for God is greater than our heart and he knows everything. 1 John 3:20. He Dans le Nouveau Testament, je vais vous donner des preuves. un Jean 3, le verset 20. 1 Jean le verset 20. Dieu est plus grand que notre cœur et il ci testament bu bees bi firnde yaa ngi ni benn Jean ñett aaya ñaar yàlla yàlla te xam na lépp naaw will come to the Quran. In the last testament is the Quran. Here are the proof from the Quran. Surah 6 verse 59 and with him are the keys of the unseen none knows them except him and he knows what is on the land and in the sea not a leaf falls, but but that he knows it. This is profound. Not a leaf falls from a tree that God doesn't know. He knows every single little thing. Dans le Coran, le Dernier Testament, Surah 6, le verset, 6, le est celui seul qui détient les clés de l'inconnaissable. Nul autre que lui ne les connaît. Et il connaît ce qui est dans la terre ferme comme dans la mer et par une feuille, et qu'il ne le sache. Même pas une feuille ne ci alxuraan testament bu mujj bi suura juróom benn aaya fanweer ak juróom moom moo yore caabi kumpa moom moo xam lépp ci asamaan ak ci suuf ak ci ndox yi xob sax te xamu ko dara umpul yàlla God told us in all three holy books for us to recognize him. So if anyone is ignorant of anything, he is not the Almighty God because God knows everything all the time. If you say Jesus is God, it means God was ignorant for 33 years. In Mark 13 32, Mark 13 32, when asked about the judgment day, he said, Not the angel, nor him the son, but only the Father knows. He said he doesn't know the judgment day, only the Father knows. And if he, if only God the Father knows, that means the Holy Spirit doesn't know either. So, this is one proof that Jesus is not God. More proof in John 11, verse 34. This time, not only the Father, but some human knows things that Jesus doesn't know. So Jesus is asking humans question. So in John 11 verse 34, He's asking, Where have you buried him? Where have you laid him? God is asking question to him because he doesn't know. And you're saying this individual is God. And if you say he resurrected somebody, just keep reading the verse until until verse 41 and you will see. And another one Mark 11, verse 12. Mark 11, verse 12. He was hungry and didn't know the fig season. He went to the fig tree hoping to find some fig so he can eat. It wasn't the fig season, so he got frustrated and started and started cursing the tree, saying, I hope you never get figs ever. Because he did not know that it's not the fig season. The tree did not do anything. That tells you he's not God. Even a farmer can know the fig season. And in the Quran, chapter 5, verse 75, tells us Jesus and his mother ate food. If you eat, it means you're going to go to the bathroom. Are you saying God goes to the astaghfirullah? See what you guys are doing? God doesn't do number two. Onjubillah. Dieu nous dit dans les trois livres saints pour qu'on reconnaisse qu'il est le seul vrai Dieu. Donc si quelqu'un ignore quoi que ce soit, il n'est pas Dieu. Le Tout-Puissant, parce parce que Dieu connaît et il est au courant de tout. Si Jésus est Dieu, excusez-moi, donc ça signifie que Dieu était ignorant pour 33 ans. Dans Marc 13, le verset 32, Jésus dit qu'il ne connaît pas le, le jour du jugement dernier. Il dit, les anges ne connaissent pas, lui il ne connaît pas, seul Dieu le Père sait quel jour est le jugement dernier. Donc, ce qui veut dire, même le Saint-Esprit ne connaît pas le jour, parce qu'il a dit, seul le Dieu le Père connaît. Et j'ai un autre verset qui est plus grave. Jean 11, verset 34. Parce qu'ici, Dieu peut connaître quelque chose que Jésus ne connaît pas. Mais si nous, les simples, les simples humains, on connaît quelque chose que Jésus ne connaît pas et il doit se renseigner envers nous pour connaître, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu. Dieu ne demande pas d'informations aux humains. Mais Jean 11, verset 34, Jésus va demander où l'avez-vous enterré. Donc votre logique est Dieu se renseigne des humains. Et si vous dites qu'il a ressuscité quelqu'un, Lisez jusqu'au verset 41 et vous allez voir. Et dans Marc 11, le verset 12, il avait faim. Il, il a aperçu un figuier, mais ce n'était pas le temps pour le figuier d'avoir de, de des fruits. Il était tellement frustré, il a commencé à maudire l'arbre. L'arbre n'a rien fait. C'était pas la saison pour avoir des figuiers, donc euh, des, dates. Donc, le figuier n'avait pas de date pour que Jésus mange et Jésus s'est frustré et il a commencé à maudire le figuier. Et dans le Coran, le chapitre 5, verset 75, dit que Jésus et sa mère mangeaient de la nourriture, et si tu manges, tu vas dans la douche. Maintenant, vous voulez dire, vous voulez nous faire croire que Dieu fait le numéro 2, Astaghfirullah. Jésus mangeait, et si tu manges, tu vas aller, c'est naturel. Donc Jésus n'est pas Dieu. Dieu ne fait pas le numéro 2. Regardez ce que vous dites et pensez, vous allez comprendre. yàlla wax na ñu ci ñetti téere yu tedd yi dara ump ko ku xamul lépp walla kuy laajte rekk doo yàlla yeesu ngeesoo ci Marc fukk ak ñett aaya aaya ñett aaya ñett fukk ñaar xamul bésu yowmal xiyaam malaaka yi tamit xamuñu ko yàlla sunu borom rekk xam bis boobu fii mu ngi woowee yàlla pap mais loolu seen làkk la comme ñun wolof ni ñuy woowee yàlla sunu boroom moom bu woowee yàlla pap loolu seen làkk la du yàlla mooy papam dëggantaan loolu laa bëgg a xam ngeen xam bu fekkee da ngeen weddi lu ma wax dem leen ci Jean 20 le di set lépp dina leer foofu mais bu gën garaaw du boobu parce que xamul bésul yowma xiyam mais bi gën a garaaw mooy yéen ngeen ne kii yàlla la ba pare muy ut ay xibaar ci ay nit yàlla soxla na laaj nit pour xam lenn fu mu féete wala lenn fu mu nekk ci Marc ci Jean onze ayat may noon Jean si Jean si Jean fukk benn aaya ñett fukk ak ñeent ba Jésus dama xalaat yaa may réer sax waaw Jésus di laaj xibaar nit yi dem ci nit ñi ci aaya boobu ne fan la nekk waa ji dee fan ngeen ko suul ndax xamu ko woon honnêtement xamu ko woon ci dëgg-dëgg xamu ko woon moo tax muy laajte mais bul ne am na ku mu tekkil ndax boo demee ci téere bi ba ba aaya ñett ñaar fukk benn ñaar fukk benn boo ko gëstoo di nga xam li ma la wax di nga xam lu bari ci aaya boobu léegi ñu dem ci Marc fukk ak benn aaya fukk ak ñaar yeesu ngeeso dafa xiif gis garabu tàndarma mu jubal ci garabu tàngalam tàndarma ak yaakaaram ñëw fekk ne nekkul ci tàndarma xew na garab yi du tam bu ñu war a am tàndarma mu mere garab bi di ko xas naa kay yow doo mësati am garab maa ngi xiif amoo sax tàndarma boo ma jox ngeen kookoo yàlla xalaat leen ngeen di def delluwaat leen seen xel te ngeen xalaat te boo demee ci alquran aaya jur suura juróom aaya eh, soixante-quinze bi ñu waxee ci wolof fanweer ak ñaar fukk ak juróom fanweer ak ñaar fukk ak juróom ne Jésus ak ya dafa ne Jésus ak yaayam dañ doon lekk di naan te ku lekk naan di nga dem ca douche te loolu ngeen bëgg a wax ne yàlla da koy def xalaat leen ngeen xam ne li ngeen di wax tegu leen ko fenn ngeen delluwaat seen xel te bàyyi tooñ yàlla I want you guys to think with this and not with this. And as humans, if we do that, we'll be fine. Je veux que nous, les humains, nous tous, on parle, on pense, on réfléchisse avec ceci et pas avec cela. Si on fait ça, on n'aura pas de problème. dama bëgg jaamu yàlla yi di xalaatee seen xel bañ a xalaatee seen xol di xalaatee lii bañ a xalaatee lii buñ ko defee rek duñu am benn toog-toog maa ngi leen di sant leen gërëm peace out à plus